dama naan bi sëriñ sépp dawee ci Ousmane Sonko usmaan Sonko jub si ñëw ci moom looloo waral le marabout de Ousmane Sonko buñ ko waxee xel yépp ci genn jëmm lay dem. jërë ngeen jëf mbokki internet Allô Sénégal bi mu ko dalee dégg du tey bi mu ko doonee du tey la marabout de Ousmane Sonko kan la muy sëru sëriñ Abo Diop surtout sëriñ Massamba Diop Sam bi di nitu yàlla di borom xam-xam di borom asraar waaye nag di borom turu yàlla. day def di dindi ci turu yàlla ñi jëflanteeg moom ñoo ci ñoo ma ci doy seede mbokki internet di tey dañoo seet si jëmm ju yéeme laataa moo dugg xalwa am na lum ñu waxoon ci Ousmane Sonko mu dugg ci mu dugg xalwa ci biir xulwa xalwa bi ñetti fan ñu téye Ousmane Sonko mu génn jël yoonu makkatal mu karam ñëwaat am lum ñu waxaat ci Ousmane Sonko waaye sëtug sëñ Massamba Diop Samb bi tey la nar a defaat révélation yu yéemey ndax bi mu jugee makkatal mu karam ba léegi dañ koo am luñ ko tere woon tat dat bi jeex na damay ragal mu génne cuuraay yi damay ragal tey mu taal sondeel bi waaye tey sëñ Abo dinañ wax ci remaniement bi nga xamante ni moom la Macky Sall teg coow li dafa jug ñu ni remaniement bi est-ce stratégie ngir camoufler tas bi bennoo tas est-ce que du stratégie ngir jiital Amadou Ba gën koo ngemb ci kanam wala sax est-ce que Macky Sall nar ñoo dem ba ci biir mu wor Amadou Ba. loolu ba léegi mën naa nekk waaye itam ki nga xamante ni moom mooy Bougane Gueye soxnaam dafa génn àdduna ñu ñaanal ko yàlla suñu borom xaaree ko àjjana sénégalais yu bëri am luñ ko ciy wax muy lu ñaaw lool ñi nee nañ est-ce que du ci lay jaare defar ay mbiram ndax gis nañ bi am bi soxna si génnee ñaari fan la tegale sol yu ñuul yor kurus gu xonq est-ce que du misaal dinañ ci waxtaan ak ku tedd ki dinañ ci waxtaan ak sëriñ Abo Diop surtout sëriñ Massamba Diop Sambi balaa boobu dañ koy bàyyi moom mu nuyu mbokki internet yi nga xam ne ñoo koy seetaan sëriñ bi bismillah bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala haadil amin wa mawlaana muhammadin il makin wa wa sahbihi sawi ridwaan wa tamkin maa ngi nuyu mboolem jullit nuyoo ba gën a rafet te gën a yàlla ci diggante jullit ak moroomam te moo di asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. may sant bu baax ci jataayooti ak yéen lool ak mbégte ni ma ko baaxoo di def waxtu wu nekk rek mm-hmm. sama jataayoo ak yéen dama ci yëg mbég moo xamante ni si ne sunu boroom rek laa koy seere mm-hmm. ndax jataayoo bi lenn sababu ko lu may li yàlla defe ko nee li yàlla def lu néew ci xam-xam ci man. ndeysaan. te doomu aadama bu nekk. Hmm. li yàlla def ci yow rek. doomu aadama bu nekk. ku nekk li yàlla def ci yow rek ci nga mën a dimbale sama doomu aadama. Hmm. te ñi ëpp ci doomu aadama yi damay faral di wax ni dañuy dem fu nekk. dafa am yaakaar lool fu ci bari fan doon dem lan fay fekk wuute lool ak lan fay lan fa doon yaakaar. Hmm. te ndagam yàlla may na ma xeeti xam-xam yoo xam ni. jafe-jafe ak gàllankoor yi doomu aadama bi mën a nekk fii ci àdduna yàlla may na ma xam-xam xam-xam yoo xam ne man naa ko caa taxaw ba mu génn ci gàllankoor yooyu ak jafe-jafe yooyu mm-hmm. xëy na àllaaxira nag la fay dimbali doomu aadama bi moom moo ko fay jëfal boppam moo tax man su ma jataayoo ak yéen mm-hmm. mbégte laa ci yëg ndax damay jàpp ni xam-xam bi yàlla def ci man responsabilité la boo xamee ne bu ëllëgee yamal xiyaam mm-hmm. Euh, bu ma ci taxawul doomu aadama yi fii ci àdduna dinaa ko layoog saa borom subhaanahu wa te loolu moom moo de summa la tusalunna yawma isin xanin nahim lamin sama xol taxu koo neex lool daanaka dama bëgg a doore ci massawu sunu mbokki jullit yële ca di dund lu metti mhm. ndax jullit ak moroomam tey jii lii may yëg ci sama xol ci naqar mhm. ci noonu yàlla yi fitna yan leen di teg ca foofee maanaam bari na lool ñu koy yëg fii ci Sénégal kon maa ngi leen di masawu di ñaan yàlla na leen suñu borom subhaanahu wa taala kattan ah noonu yàlla yooyu noonu lislaam yooyu nga xam ne ñoo leen dëkkee teg finna yàlla na leen suñu borom dolle rëbbu te do te dolli leen a toroxal xam nga yàlla moom dafa yéeme lool ak i mbiram mm-hmm. waaye Lamine. sama xol neexut. macha sama xol neexut dara dara dara dara dara daanaka ci liy xew ci dëkk bu sell boobu. ndax dëkk la boo xamee ni du dëkk waa Palestine yi rek déedéet. jullit ñëpp a ko bokk. ndax euh, barab ba fa nekk. Mhm. jàkka jafa nekk alxuraanul karim daf koo tudd mm-hmm. jullit ñëpp bokk ko maanaam suñu borom daa barkeel jumaa ja ba barkeel sax ko wëraale du samay wax wax yàlla la suba borom bi subhaanahu wa moo wax ci téere bu tedd bi suratul isra daan ni mm-hmm. subhaanallazi asra bi abdihi laylam min al masjidil harami ila al masjidil aqsa alladi barakna hawlahu mm-hmm. xam nga yàllaa ko tuddal boppam masjidul aqsa bi nga xamante ne si man yàlla damaa barke la ko wër xam nga kon jullit yëpp ko bokk ni masjidul haram tedde dëgg la moo gën a tedd masjidul aqsa waaye nag masjidul aqsa jullit dañ ci am cër kon buñ leen dee tegle ñoo ngi ci am naqar ak euh, naqar lool dama xaw a jaaxle lool ci réew mi Lamine ah. naka lañ mën a nekk réew moo xam ne dan ni dix-sept maanaam dix-sept millions ñu ne quatre vingt pour cent de musulmans waaw yàlla def ñu jël kenn. koo xam ne xëy na sax yaakaar yi moom tas na ci moom bu yàgg. Ah. ñu ni ko yow la ñu jox suñu baat ñun ñëpp te ñun ñëpp ñuy woowe suñu mbopp ay jullit 95 yëpp. waaw maanaam suñuy mbokk jullit nga xam ne yàlla ni mu fonk jullit ak mbokkam. waaw innamal mu'minuuna ixwa mhm. maanaam jullit ñëpp ay mbokk lan way gëm ñëpp. dem naa sax ba wax ci alxuraan ci suuratu saf di wax ni. inna allaha yuhibbu llazina yuqaatiluuna fi sabilihi safan ka annahum bunyaanu marsuus nga xam ni. maanaam ñun ñoo waroon a ànd xeex bi mais comme yàlla def na ñun jote jotewuñ fa mënun luñ ko naqar naqarlu ko ak wax ko suñu làmmiñ te moom moo nu jiite moom lañ jox suñu kàddu lan moo tee mu yëkkati kàddoom comme tey jii lu mel ni ni ko tey Erdogan defe mm-hmm. kon daal ñun am na déception trop ci kii nga kii nga xamante ne si ni moom lañ teg ci bopp réew mi xëy na moom yàgg naa tas yaakaar sama xol na neexul daal waaye laal li may wax maanaam li may wax yahuud yi bon yooyu nga xamante ne si ñoo dëkkee teg jullit ñu ay finna uh-huh. loolu rek laay wax Macky Sall ah? waaw li tax xam nga ñooñu di teg jullit ñu fitna suñ borom def ni leen wala wala wala taxsiban wala taxsiban allaha xam xamma yaxmalu saalimuuna innama yuwaqiruhum li yawmin tasqasu fihi al absar maanaam bu leen yaakaar ni yàlla dafa sagganu ci jëfi way yi yàlla daf leen di yéexe rek ba benn bis mu ñëw bis boobu nag mooy bis penc. mais jàppoon ni Macky Sall ci li mu nekk moom mooy. Macky boo gisee ma ni li may wax ñee laa koy wax. waaw maanaam bu mu yaakaar ni yàlla da koo fàtte ci doxinam wu doy waar wii. waaw Macky Sall ni muy doxee ak euh, population doy na waar ba jéggi dayoo. Lamine ñaata doomu aadama ñoo fi faatu. la seen bakkan rot ci insistis ndeysaan ngir rek yaakaar ne seen réew mën na baaxee ci benn nit ba tey jii ñaata doomu aadama lu jege daanaka juróom fukki doomu aadama ba tey jii mosoo ci gis benn l'enquête. mais jamono ji Macky Sall ma ngeeg Bill Gates toog ca réunion ba. ma ni Macky Sall laa de bu yaakaaree ne. waaw saa borom subhaanahu wa taala dafa sàgganu ci jëf yii muy def. waaw déedéet. billaahi daf koy yeexe ba bis penc rek. Hmm? waaw waaw kullu nafsin bi maa kasabat na mais mais mais léegi attaqué nga Macky Sall wax ci li mu ne remaniement bi yaakaaroon ne ca la ne looloo ko xañ ngir mu ngir mu ngir mu mën a euh, tal sax yeneen yeneen dëkk yi. Mouhamadul Amin. waaw maanaam jëmmi Macky Sall. waaw xam nga man ñaare du ngeen faral dégg may wax président. waaw ndax koo xam ne ban koo falee. maanaam fa sensé la yëkkati ak wor. ci suñu kaw man booba laa gëj wax président. Hmm? Euh, duma ma sawar sax di wax mbiram moo ñooñu ngeen naan xaw ma dañoo bennoo. Hmm. bokk yaakaar xaw ma. bennoo. bennoowunu wax naa ko waxate ko bennoowunu taxsibuhum jamihan wa qulubuhum satta da nga leen di njort ñun dañoo benn dañoo doon benn waaye seen xol yi moo gën a taqalikoo luy taqalikoo dañuy lekkante seen biir maanaam. ñoo raw lekkante sax. maanaam Amadou Ba mi ñu jiital kon nan nañoo nar a def ci ak moom. xoola ma ni. waaw Ahmadou Ba ak Aly Ngouille Ndiaye ak. ah. nu ngeen koy nan mooy eh, lu ndaw li. Mm, ñoom ñëpp laa la wax. déggoo li ma la wax. waaw maanaam. ka annahum bi andu àndaa garaaw de. li ma la wax. ka annahum xusubum musanada mhm. amul kenn koo xam ne tekk nga ci dara. Macky Sall man da man daanaka Mouhamadul Amin bu ma sañoon nga laaj ma sama wàllu xam-xam maanaam lépp lu jëm ci wàllu Macky Sall rek man boo ma ci laaj. du ma ci sawar a wax. mais di nga wax ndax Macky Sall nee nañ sax nar naa war Amadou Ba. xaar ah. maanaam mu tekki ndombal tànkam maanaam delloowaat ñu sunum réew. mu Macky Sall loolu la ñu xaar ni bu ko tekkee Amadou Ba moo koy tax waaw réew moo xamante ne si bu ñu doon téeméer leen juróom-ñeent fukki juróom-ñeent yëpp kenn lan yaakaar am doyro lool ci moom ndax ak jubam mais kooku du doon candidat muy Ousmane Sonko <laughs> daanaka ni yaa ngi may yokk sax euh, ay retaan ndax euh, yow dafa mel ni Macky Sall ak i pexeem dafa mel ni dafa dem ba yóbbu la te fekk déedéet yaa ngi waroo ah. gis nga Macky Sall bu yaakaaree ne lu suñu borom namm ci Sonko maanaam mën na cee dindi lu toll ni virgule billaahi moo ngi nax boppam te billaahi la si laa ilaha illaa huwa xayruhu maa ngi jël yaara maa ngi jël yàlla seede di ko seere suma taraay bàmmeel maanaam Ousmane dana génn ci jàmm te am na lu yàlla def ci moom te doom mindeef mu yàlla bind Macky Sall bu ko jëloon sànni ko ci tineelu géej gi du ko tey doon loolu loolu man mii maa la ko wax moom Ousmane Sonko wa makarallah wallahu xayru makirin yàlla na daf leen di bàyyi Ousmane léegi mu génn maanaam ko di wax léegi mu génn ci kàttanu yàlla mii may ak maanaam lu yàlla nam ci moom Macky Sall ak maanaam ku yàlla bind mënu ci dara dara te saa borom def na ko ba noppi. kon est-ce que du li ma for ci wéwu béy mooy am lañ ne dañ ne dañ koy koy génne réew mi. dañ koy génne pour mu bañ a bokk élection yi. Eh, génne ko réew mi eh. comme nañ def Karim Wade. daanaka ni boo nee dañ koy génne réew mi yaa ngi may fàttali waxi maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa maa wa yamkuru bika llaziina kafaru liyusbituuka aw ko aw yuxrijuuka wa yamkuruuna wa yamkurullaah wallaahu xayrul maakiriin mm-hmm. loolu yëpp nag day mel ni moo feeñ ci Ousmane Lamine man bu ma ci dee wax sama xol dafay xaw a yëngu. mais sëñ bi dañ laa dañ laa xamee gis lu ñëwagul maanaam sëriñ si ba ñuy seet ñu ci bëri dañuy fanaanoo nit ki yow nga ñëw génn fi seetu loxo ba nit ki boo fotoo loxom wax nga wax ko ci lu lu tàq te du fay. Lamine tey jii balaa may wax ci loolu damay ñaan képp koo xamante ne si yaa nga may topp. ngir yàlla ak xam-xam bi yàlla def ci man. dama bëgg maanaam nga diglu ma maanaam nga teewlu ma bañ ma diglu rek. boo bëggee dégg xam-xam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg déglu ma di nga xam ne ku yàlla mayay wax koo xamante ne si waxu la daray wax boppam ci alxuraanul karim ak sunna doo dégg mukk ma ne lam nee naa la lépp lu ma lay wax ci alxuraanul karim ak sunna bismillah yow mi bëgg a jariñu diglu sama sa sa jataay ba mu jeex takk lan nga bëgg ma leeral la ko ci seet sëñ bi seet gis balaa may ñëw ci gis gi may gis xam nga ñu bare bari nan naan dañuy seet man seetuma damay gis fu doomu aadama bi mën a teg mën a nekk ci àdduna bu fataa teng loxol nday jorom bii billaahi ma leeral ko lépp lu nekk ci moom insha allahu taala danaa ci ñëw Lamine ndax xam nga sama jotaay bi saa boo ko sàkkoo ci man du ma ko gàntal xam nga lan moo tax lan moo tax sëñ bi jamono dafa doy waar te mm-hmm. bari lool maanaam lépp loo gis lu nekk yàlla def ko am nañ ca dugg ñoo xam ne yàlla mayu leen ca la ilaha illallah wallaay dawuma woon sax di préféré di génn dama dama daan toog dama daan préféré toog bañ a génn ci internet bi. wallaay soppee lay laaj sëñ dafay dem ba mën mën a mënatoo ko ñàkk bañ a def. Seydina Xali yi dafa waxoon ni. xiina xiina sakkat ahlul xaq xanil baatali maanaam maanaam waxtu woo xamante ne si ni ñi ñi yàlla may xam-xam nee na ñu tekk bañ a wax bàyyi ñu xamul léegi ñu féetewoo wax nee na nit ñiy diglu dañu yaakaar ni ñi xamul kët ñoom ñooy ñu xam hmm. te kon kat bu boobaa maanaam ña yàlla may xam-xam boo ëllëgee man xiyaam responsabilité lañ ca loolee ndax yàlla boo ëllëgee man xiyaam balaa moo mbugal kenn ku xamut day laaj ñi xamoon ndax xamle nañu loolu nag moom moo tax ndeysaan lu ma xat-xat-xat faw ma génn leeral Lamine dama bëgg a xam nga man ci teng loxo xoolee maanaam daanaka ci xam-xamu biddiw bu ma gisee ñi tappaleeke di fen naan jox ma sa tur wayjur wu jigéen ma seetal la maanaam sa tur sa tur wayjur wu jigéen tur ak tur wayjur wu jigéen man sëriñ aboo maa ko wax kenn mënu cee gis nit ki dëgg-dëgg lan tur ak tur wayjur wu jigéen kenn mënu cee gis nit dëgg-dëgg ndaxee mbaay la nit ki dafa gën jamono ba am juróom-ñaari fan ñu door koo jox tudd am na ci ñoo ñu jox tur am na ñoo xam sax dana aj sax ngi tur wa waaw léegi loo xam dafa dem nit nan lañ ci mën a xamee mbiri nit ki yëpp Lamine diglu ma ma wax la xam-xam. emprunté gën a wóor. li doomu aadama bi ganewaale jamono. maanaam waxtu woom waxtu wam gane jamono. waxtu maanaam weer wam gane jamono xam nga yàlla def ne inna iddata suhuuri inda Allahi isnaa ashara shahran fii kitaabillah mm-hmm. maanaam weer yi fukk la ak ñaar. léegi nag doomu aadama bi waxtu woom ca gën a jamono. ak buruj ba mu tolloo. maanaam yàlla la tax mu gën a ko jamono ca waxtu woowu. yàlla moom moo ko xam. Mm-hmm. léegi nag ci biddiw boobu la ñuy sukkandiku. man a mën a leeral doomu aadama bi lépp lu mu sa nekk ci moom. moo tax euh, xam-xamu biddiw ngay xoole déggoo li ma la wax dama ni man xooluma damay gis. maanaam bu ma ko li naan la jox ma sa tur sa tur waajuru jigéen néew la ci. man sa teng rek bu ma ko xoolee lépp lu nekk ci yow ci kattanu yàlla mi may ak mbaaxam dinaa la ko leeral. ma fayu nag duma la ko def te duma di nelaw am xam-xam boobu dama eh. damaa tërbiyewu ay nit yàlla ban yëkkati xam bi jox ma moo tax boo bëggee ma gisal la lépp lu nekk ci yow fay ma mais sëñ Abo xalwatu nekk na loo xamante ni sa domaine la ndax turu yàlla yi nga yor moo foor sëñ bi turu yàlla loo xam la loo miin la. Mouhamadul Amin euh, xalwatu. waaw tey jii mën naa ni dama bëggoon a dimbali doomu aadama yi ci. Euh, euh, ndeysaan dama bëgg ñi may topp jariñu parce que. mais sëñ bi lu tax nit ñor yor ay millions te mu te bëggoo ko dugal xalwa lan moo tax ci nit ñi ngay dugal xalwa wala doo dugal ku ne. waaw xam nga xalwatu. maanaam man ku ma ko duggal lekk mooy samp naa la ci àdduna moom mënatoo cee fay dinaa dégg nag gën a ñu baree bari naan xalwat waaye xalwat yombut de allahu akbar xalwat nit dugg na ko génn jële ca ndof nit dugg na ko génn jële ca wér di xel nit dugg na génn jële ca tawat yoo xam mënu koo faj ci àdduna doonul lu yomb de laa ilaha illallah maanaam bëgg-bëgg doomu aadama bi dafa jàkkaarloo fukki bunt ak ñaar yoo xam ne bunt bu ci nekk am na tur yàlla wu mu jàkkaarloo woo xam boo duggee boo duggee ni turu yàlla wu ci nekk da ko wér di fukki junne ñaar ba mu eh? mat boo koy wér di nag lu nekk dalaa mën a dikkal xalwatu moom daanaka ni doon maanaam eh, mooy adduhaawul akbar ñaan gi gën a mag mooy xalwatu waaye Lamine bëggoon na ma baaxee nit ñi xam nga juróom yi rek mooy yi nga xamante ne si ni doomu aadama ci la war a moslu mooy yi mën na gàllankoor doomu aadama juróom yooyu xam nga mooy yan mooy juróomi min sarr yi nekk ci alxuraanul karim dama ko bëgg leeral ba ki ma koy ki may dégg xam ni ku yàlla maya ngi wax borom xam-xam dëgg ko teg alxuraan a ngi wax juróom yooyu mooy yan juróom yooyu yàlla ci jëmmam moo waxal yonent bi ni ko yow yonent bi neel yow yàlla yàlla nag ma musal ci juróom yi juróom ya mooy yan mooy min sarri yi min sarri maa xalaq ak min sarri xaasin saa xoba ak min sarri nafaasaat fi ma ak min sarri xaasin saa léegi juróom yooyu ngir ma leeral ko te dafa boo gisee ma ni Sénégal fi ne nii dañu war a jug ci kaaraange léegi ku dégg ku dégg juróom yi may leeral. te yàllaa ko waxal yonent bi boppam. maanaam danga nga jug sa bopp loo mën ci kaaraanga. juróom yooyu moom la Serigne Touba di bind ci xasidaam gu siiw googu di ci eh, di wax ni wakum muhisan lana min sarri si hasadin mhm. max sarri fammin wa sarri laxay ni yàllaahu mhm. léegi nag dajee tënk maanaam juróom yooyu. ba ca jiitu mooy iñaan. Lamine baa xam nga ne iñaan mën naa rey nit. nit iñaan iñee ñetti nit iñaan la rek nit iñaane la. loolu mën naa rey doomu aadama. du samay wax waxe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la yonent bi nee na sulus xubur ummati min alxasadi sama xeet wi faatu ba nekk seen bàmmeel boo leen xaajee ñetti xaaj benn xaaj ba iñaan moo leen rey ma ni nit ñi nañ dem jug seen bopp ci wàllu ñaan yàlla ñaareel ba ca topp mooy bët catul bët dafa doy war lamin baa xam nga ne bari nañu dee te seen waxtu dee jotagut bari nañu faatu laa la wax seen waxtu faatu jotugut bari na ñoo xam ne dañoo amoon ba xëy ñàkk lool. ñàkk bopp bari na ñoo xam ne dañoo amoon wa amoon kattan lool xëy wérad wérad yoo xam ne daf lay yéem bari nañoo xam ne dañoo amoon lañ am lépp yàqu. la leen ko teg catal bët bët dafa doon lu yéeme. ku jàng euh, téereb Serigne Touba bi ñuy wax euh, aljawa aljawharu nafis. Mm-hmm. da nga ca gis muy leeral ni maanaam ki amee bët bu aaye. nga xam lu mu xool mu yàqu kooku dañ ko war a tëj këram. kon xanaa loolu moo lay dëggal ni borom bët bu aay am na léegi nag boo ko xàmmeewut te yow yaa ngi solo yow yaa ngi dem fu nekk am na bët yoo xam ne lu ñu xool mu yàqu moo tax am na ñoo xam ne ndeysaan ñi yàlla bind biddiw bu kawee nga xam ne nit ñu fës leen ñooñ ñaaree faw fu ñu toll rek maanaam catal ba da leen topp yàqule alal du mën a taxaw seen loxo lu ñëw dafay daal di dem ñetteel ba moom moo di maanaam njabar njabar moom dafa doon yéeme muy liggéey xam nga ni falaxi ak naas li ko tax a wàcc xam nga lan moo ko tax a wàcc. waaw maanaam bi muy wàcc ngir dindul yonante bi ak njabar benn yowoot bu ñuy wax lu bay dundul ansam moo njabar yonante bi ba mënta yëkkati benn cër yaram bi diis gann oh. suñu borom wàccee ñaari saar yooyu ngir mu dindil ko ngir mu dindil ko njabar gi. Mm-hmm. moo tax njabar ñaare liggéey saa bu nekkee ci nit yaramam day diis gann mu mel ni kun sëf. njabar noonu lay manifester ci yaramu nit. wax liggéey ñaare saa bu nekkee ci nit yaramam day diis gann mu mel ni kun sëf te ñaaree nag euh, bari na ñu am gàllankoor ñoo xam ne pexey noonu ndeysaan moo leen ko teg. waaw muy def-def te def-def dafa doy waar. maanaam day dox ci diggante nit ak borom këram nit day nekk barab ya gën a baax ma xanaa xamoo ni man nga bañ def kenn dara bañ a kenn dara di génn di doxe say soxla rek. dëgg ci liggéey sa àdduna yàqu. bari na ñoo bari na ñoo xamante ni si ne maanaam maanaam luñ leen. di loolu ñàkk kaaraange moo koy war a dégg li ma la wax bari na ñoo xam ne laal la. seen mbir mënta sotti ci àdduna même yow boo boo taxawoon bëgg leen a taxaw sax day mel ni dalay jafe ku leen di day mel ni pour mu matal loolu jafe-jafe lu ñu lijjanti du sotti la ko waral mooy man na ñoo maanaam def-def ma mën na ko waral def-def yoo xam ne sa yoon nekku ca moo tax ñu naan fonkal ñaan parce que fii boo bëriwut ñu bëri dal sa kaw lu mel noonu tax da ngay nekk kilifa borom daraja mu fonk yi ñaan lool léegi yow nga den nag moom fonk ñaan lu war a gàllankoor rek ci yow lay ñëw dogalaat ci yow moo tax jug leen seen bopp ci wàllu ñaan yàlla gis nga kilifa ki ko yàlla def dëgg dee sax du ko yomb saa bu waree faatu rek ku nekk ci wetam mooy faatu li ma lay li leen di wax ñi ñi may ñi may seetaan ñëpp te élection yaa ngi di wax gaa yaa ngi dar mi politicien naa koo jël rek ci sama uh, waa ji sama waayu bopp ji Ousmane Ousmane Sonko buñ ko mënoon a rey ren di nañ ko bu yàgg buñ ko mënoon a rey ñaata yoon lañ ko pexeel waaye uh, suñu borom dafa yéeme de ñaan. waaw dinañ xa da da da da. Ousmane Sonko daa am ginnaaw baat. <laughs> sëñ bi foo ko dugal da nga ko dugal ci xalwa yi wala. ñaareel ba li ma bëgg a leeral ba ko juróomeel moo di <laughs> rab eh. rab rab rab nii maanaam nit ku bon ak jinne ji bon daa mën a gàllankoor nit te rab dama cee am lu ma metti lool. ndax la Lamine man bu ma gisee tappalekat yi. di génne ay sunguf ak naan lii mooy faj rab dama ay caaxaan rek la nekk. lu koy faj ma xamal la leen ñi gën a ñi gën a gàtt xam-xam. mooy ñi nga gis ñuy génnee nombaake sungu fa ki reen naan dañuy faj rab ak dañuy képp koo gis muy maanaam muy génne nga baal ma nag jubluwuma ci tooñ. koo képp koo gis ay kii di ko wër. ak lu nekk rek maanaam mu naan day faj léegi maanaam kooku fajut. xam-xam nekkul ci yooyu mu nekk. xam nga xam-xam fan lay nekk. fu mu ne ci dënn góor yàlla. laysa fil kutubi wal xaraati si xilmun innama al xilmu fii sudóori rijaal moo tax dem leen ci ñi yàlla may xam-xam ñi yàlla may mënuñu mënuñoo yemut ak ñi yàlla mayut eh. xul xal yasawi lësina yaxlamoon wala lësina laa yaxlamoon borom bi nee na ñi am xam-xam ak ñi amul xam-xam mënuñoo yem ba mukk loolu yëfi gone la sëñ Abo li la gën a yomb mooy taal nit ubbi nit rab bi ma doon leeral léegi laa bëgg laa bëgg àggal ñaari xaaj yi rek la benn day dam nit wala nit ki doon ko ci néegum ndeyam wala ci néegu baayam mu dam nit mooy mu soppali ko solu wala maanaam nit ki dondoo ko ci néegum ndey wala néegu baayam gis nga nit ki bu ko dondoo ci néegum ndeyam mënuma koo faj bu dee ci néegu baayam benn fan ma taqale koog moom bu dee da ko bu da koo dab lu mu yàgg ci moom lu mu yàgg-yàgg ci moom ma taqale koog moom léegi ci kattanu yàlla nga baaxam rab nag dafa doy waar bari na lool ñoo xam ne bari na lu ñàkk mën na doon doom mën na doon alal rab fi ne nii xanaa xamu ni maanaam nit ki bari na lu yàqule sax ci wàllu alal da ngay gis koo xam ne ni day nekk ci barab barab yi gën a kawe mm-hmm. ay mbiram war a ndeysaan mu dëkk alalam mën laa wax ni la def alalam di yàq fu mu toll oh. loolu rab da koy def def da koy def ma ni Lamine man man ci ubbeeku bi ubbeeku bi ndax daf daf maa ñor de tax maa wax ko bari na ñoo xamante ne dimbali nga leen ci wàllum ubbeeku def nga leen ay ndam ci seen famille waaw man xam nga damay faral di wax ni wa amma bi nihmati rabbika fa haddis maanaam xéewal yi ma yàlla defee xéewal yi ma yàlla defal dama koy faral di nettali moo tax ndeysaan bu see sa sa dégg maanaam sa xam-xam soriwut wala sa dégg-dégg mën nga yaakaar di sax damay ndamu da fekk ndamuwuma lañ man lan laay profité fii ci àdduna mm. yàlla may na ma fi lu nekk bari na ñoo xam ne buñ juddoo bay dox sama xam-xam la ko yàlla jaarale ndax seen waajur jomboon na duñ am tu tànk xam-xam bu ma yàlla may ci la ko jaarale bari na ñoo xam ne bu doonee seen ndeyjooru famille ci sama xam-xam la ko yàlla jaarale bari na ñun beddi woon nga boole waa leen ci société bi ma la wax man damay samp doomu aadama xam nga damay faral di wax ni gis nga <laughs> maanaam nit ñi nañu ràññee daal mhm. ràññee gis nga jamono jii mhm. maanaam kun fi nax day mel ni yaa bëgguñu nax la borom xam-xam yaa ngi nii jàkkaarloo ak yow te mu wóor la ni lii ñuy wax mooy dëgg dëgg xam-xam nga bàyyi leen fi dem ci jabarkat bi bi li la sa moroomu sëriñ yi nangul mooy dangay ñëw fekk ñoom ñëpp di fajee néew kàttan ay sungu fakki ren te dafay am ay jeexital ci yaramu nit ki nga gëstu ba gis ni alxuraan nekkite moom mooy faj saafara si nga xam doo am effet secondaire. man yi déggoo li ma la wax jëlale naa di man luy nuroo xeetu reen. waaw wala sunguf du lu may jox doomu aadama ñaari aayat yi mu innal quwwata lillahi jami'an ak waaye sidikum quwwatan ilaa quwwatikum mm. moom laa jox doomu aadama bu ko jëfandikoo dina am kattan ba mel ni ku toll ci ñaar fukki atam ak juróom ba ba muy faatu du tàggoog moom xanaa loolu leer na leer li ma doon wax léegi ci wàllu xam nga dama am benn taalibe bu ndeysaan maa ngi koy nuyu bu déggee dana xam mu ni ma sëriñ bi dama daggoon bi spécial ñëw Sénégal ñetti weer sangu naa ko saafara oh. mënumaa gis benn njëriñ sama bopp <laughs> ma ne ko loolu mooy gën gi dof gis ngeen bu leen kenn sonal maanaam ñaan dëgg-dëgg bu ko nit ko amee ñetti fan faw mu yëg boppam ësumalaak fukk guddeeg benn ësumalaak ñeent fukk guddeeg benn waaye xam nga li yëndiwul maanaam mooy ki nekk ci biir bàmmeel boo ko ñaanalee mu yëngi ñaan gi ki nga bokkal fii ci àdduna xalam bi di dund nga ñaanal ko mënu laa wax ni lii mooy li sensé ci man loolu ay caaxaan la mani képp koo xam ne dem nga fu nekk ñu dig lu nekk jox la nga sangu ba sonn te taxul nga gis sa bopp benn njariñ na la yàlla defal tawfeex nga jot ma yomb maa nag yomb maa jot loolu na leer parce que benn loxo laa ñi fi am yaakaar dafa bari moo tax te bu ma sañoon ku ma woo jotal ma boppam waaye képp koo xam ne jot nga ma di nga xam ne yàlla borom subhanahu wa taala maye na waaw. sëñ Abo Bougane soxnaam dafa génn àdduna mu tegale ñaari fan sol yére yu ñuul yor kurus gu xonq ñu ni am na lu làq ci ginnaaw lu sénégalais mën ta daanakaa ni man nag yàlla daf ma may xam-xam mhm. may ma may ma lool xam-xamu diine ma yor itam ay bët di xool man àdduna doonu xam nga kan mooy ku réer mooy ki xamut waaye man yàlla daf ma gind ci xam-xam koo xam ne alxuraan li muy bari bari mën nga koo tafsir kon man duma ma dox mukk ci réer waaw waaw moom la tax mu sol loolu moom moo ko xam yére bu ñuul am na ñoo xamante ne si moom moom mooy seen obsé ñoom ñoo maanaam mooy seen bëgg-bëgg nit ñi nañ bàyyi di bàkkaaroo mhm. waaw bu njëkkoon sax nit bu daan am lu ko naqari lu ñuul lay faral di sol. Uh-huh. man ci jamono ci ginnaaw tuuti boo ma gisee bu ma génnee sama lépp ñu lay doon bu ma bëggee du ma nit dëgg dëgg dëgg. xanaa xanaa tey laa amatul jot rek. boo daan xeex. jamono yi ma daan am benn xarit <laughs> mbaa xamoon nga ni ca ginnaaw sama mère ami jinne la jamono yooyu dëgg bu ma daan xeex man lu ñuul rek laa daan sol. du ma ci daanaka loolu jàll na léegi maa ngi yeneen jamono. mais <laughs> sëñ bi ba léegi yaa ngi ci xeex mi ci ak ci falaate gi. déggoo li ma la wax. maanaam. ndax ci suñuy nopp falug Macky Sall daj nga ci dara. sa loxo ngi ci. lu may rëccu nag ci àdduna. loolu laa gën a rëccu. li nga duggoo sa loxo ci la falug Macky Sall. moom laa xam ni maanaam fi mu ne nii boo ma déggee sax maanaam ni yàlla defee ma compte maanaam ma contre noonu ab régime da nga yaakaar ne man yàlla boole ma cee ñenn fekk maanaam man li may boole ñoom maanaam néewaa na sax kuy génn koo xamante ne si yàlla boole na leen ñoom ak noonu. maanaam fii léegi la fi benn responsable maanaam bu jugee boo xamante ne si nii maanaam boo doon wàññi kilifa yi rek xam naa ne doo doo doo doo wàññi fukk te ak ci moom. waaw yàlla boole ma ci lool ak ñoom ay wëlëre ba ci soxnaam. waaye xam nga léeg-léeg féete yàlla koy def. waaw wax dëgg yàlla yàlla dafa def nag maanaam bu ma xoolee ñëpp ñu fi nekk. Mhm. da yëmut ak kenn nag sama waa ji. waaye wax dëgg yàlla falu Macky li ma ci daj. mënu cee daj mënu ma ko maanaam dootuma ko dajati ci doomu aadama lu mu néew néew rek fatu naa moom lu ëpp 33 guddi ngir ñaanal ko yàlla. moom Macky Sall ngir mu falu. ngir ñaanal ko yàlla maa ngi ñaanal ndeysaan ndemu si yàlla ji. ka yëkkati woon lu nekk lu nekk nag tegoon ko sama loxo boobu ndeysaan tegoon ko sama loxo boobu daanaka ñu fu nekk nag. waaw waaw kooku tey jii suuf mi ngi ci kawam yàlla na suuf oyof ci kawam. waaw jàll na jàll na jàll nan wax la suñu kanam. ma ni Sénégal. am na ñu ni tam est-ce que du bàyyi politique bañ a bañ a déposer candidature ci élection yi ñu jëm. loolu maanaam mbirum Bougane la xam nga man Lamine fi mu ne nii lan laa bëgg a wax. ki am yaakaar te ñëpp ni mel moom rek la. mais Ousmane Sonko li ñu jaaxal mooy mën a boo élection yi. gars yi ne nakat bu bëggee jàmm na samp Guy Marius Sagna wala wala yeneen ak ñeneen. mbirum su lay nga Thiès. wax naa waxati ni. mooy maanaam 2024. waaw bokk naa ci ñi gëm ne élection do am. te xam nga man du ma waxantu. la may gis. loo ñu wax teg nañ ci suñu bët nga ne élection 2024. doo am ah, nee damay gis 2024 laa la wax nii la gisuma ci élection ba keroog ko ciy mi yëpp. waxat wax naa février bi gisuma ci élection ba keroog ma ko ciy gis. kon Macky lu mu nar a def ak sénégalais. lamin jàllal ci xeetu xam-xam bi ma yàlla defal lool. gis nga <laughs> Lamine bari na lu ma naqari ci réew mi day ndeysaan. waaye nañu dem tuuti. billaahi wal quraanil xasim maa ngi jël yàlla seere ay fan yu néew maanaam maanaam eh? maanaam yal na yàlla defal ko tawfeex Ousmane ko jërëjëf bisimilah. sëñ bi ci nopp laa bëgg nga tàggatoowee ko ndax nopp bari nga ci résultat yoo xamante ni yeneen sëriñ ñi dama dem ci ñu bari amuñu résultat yu mel noonu ci nopp. xam nga xeet xam-xam yooyu damay bëgg nga bàyyeel ma ko gone yi xale yi. xeetu xam boole ay nit xeetu xam yooyu ba may nekk ca daara ja di jàng alxuraanul karim avant may wattu alxuraanul karim laa ko mënoon moo tax mu yomb la daal man xeeti noob ak yi yooyu yooyu man weesu naa yooyu ay étape la ba ma ko weesoog léegi laa la wax de waaw maanaam du léegi ay at yu bari la xam nga fan laa toll doomu aadama bi nekk ci gàllankoor gàllankoor yu mu mën a toll mu ñëw ma samp ko diir bu gàtt maanaam mu xam ni man ba muy ñëw ci sëriñ Abo fii laa tolloon ak léegi fii laa toll man loolu mooy sama ndam. man looy tàggatoo ko. Oh. li may tàggatoo waxtu wu nekk laay tàggatoo. mooy. doomu aadama bu ma jot na ne ma sëriñ Abo dama bëgg nga seetal ma Lamine xam nga ni seet lu am solo la maanaam nga gisal ma laay wax. waaw Lamine baa xam nga ni bari na ñu amoon lool xëy ñàkk. bari na ñu am alali àdduna lool xëy tedd maanaam tëdd mënuñoo jug. Oh. xam nga loolu lan lan moo leen ko teg. boo ñëwee ci ku mel ni man yàlla may ma. bu ma la xoolalee sa alal la ca war a génn dama naan la génneel nangam. parce que alal li ci war a génn li ci war a génn te génn ci billaahi faw mu génn ci alal. Oh. moo tax da gis borom alal joo xam day xëy ñàkk alalam yëpp di door a rëccu. nan dégg nan dégg wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ji mu waxoon ni maanaam daawoo mardaakum bi sadaxa maanaam saafaraa leen seeni tawat ci sarax mm. waaye xasinoo amwaalakum bi sakaat maanaam. maanaam sange leen aar leen seeni alal ci ci azaka maanaam ci sarax daal mu wax ni balaa yi ñëw ak nattu yàlla yi ñëw maanaam ni ngeen na ngeen ni ngeen ko préparé ci ñaan yàlla mm. loolu nag da faw da ngay xam nit ki da ngay dem da ngay da ngay dem ca ka yàlla may mu wax la ban yoon ngay jaar ngir aar sa alal ci sarax waaye ngir aar sa yaram ci sarax mm. parce que lu nekk ko ko xam mm. misaal mu gàtt parce que ñëpp yemuñ xel. waaw bâtiment bi ndox daf fiy nekk maanaam pourtant ku nekk la ko yàlla may ci ñu ko liggéey. waaw architecte. waaw ingénieur. waaw plombier. waaw maçon kenn bokk teg sama ron xam ku nekk li la yàlla may nan la ko bàyyee ma ni yàlla ci li ma may lu samp doomu aadama la ma yàlla may. weesu naa xeet xam-xam yu ndaw yooyu li may tàggatoo waxtu wu nekk. Oh. ñu nekk ci wàllu wii nañu ragalaat yàlla te xam ni àdduna du kër. dafa bari ñu may woowee fu nekk naan sëñ Abo jëflante na diw mm-hmm. man ma faral di leen wax ni leen ku ci yaakaar ni daf leen a nax naxu leen. Mm-hmm. seen bopp rek la ñu nax ndax ku nekk da nga wéet ak sa borom ba yaakaar ni yow rek la bindoom. te gis nga àqi doomu aadama ak moromu doomu aadamaam yoonu yàlla nekku ci. Mm-hmm. te sax wax dëgg yàlla doomu aadama bi. maanaam alal ju nekk mata sàmm da waaye rawatina alal ji nga xam ne ki la ko jox. daf la ko jox ngir njàqare ngir nga ñaanal ko yàlla loolu mat bàyyi leen xel loolu yéen ñi nekk ci wàllu wi ah maa ngi tàggatoo itam ni lépp lu ñu wax doomu aadama yi ne fekk yàlla may leen ci xam-xam yooyu mhm. Lamine man yàlla mayu ma man yëpp de xam bi li ma ko yàlla dénk-dénk mayu ma man yëpp waaye yi ma may ku ci ab cëram nekk laa ni fas naa la ci yéen a ah, taxaw waaw waaw waaw waaw ah wa axiru daxawaana an alhamdulilahi rabbil alamin yàlla na yàlla doole rëbb mhm. mboolem ñi nekk ci réew mi mhm. ak di fi yee fitna kenn nag jiituwu ci sunu njët li alhamdulilah ragal féete day xañe wërsëg Allô Sénégal moo féete woo aboo Abo li ko waral mooy xam-xam li ko waral mooy ragal yàlla waaye li ko waral li ko waral mooy cofeel gu jógee ci équipe bu Allô Sénégal ñëw ci jëmmam ji moom it mu sopp loolu équipe Allô Sénégal daanaka sax du leen bañal dara ñu boole ñu ci kër gi looloo waral damay bëgg saa su ne ku ne di jariñoo ca moom ndax xam naa li ko suñu borom defal ci xam-xam fa la ñuy jaar jaajëfal leen jox leen dig daje ëllëg ci seen beneen émission jërë ngeen jëf